Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Books to Learn English with Miss Saba dal leen ak jàmm beneen yoon ci seen YouTube bi di English Books ngir jàng anglais jaaree ko ci wolof ànd ci ak Miss Saba tey nag dañuy continuer ak yéen commencé beneen chapter bu bees muy time days and activities muy chapter bi ñuy jàngee waxtu yi ak fan yi niki noonu activité yi nga xam ne lañ ciy def lan mooy time ak days ak activities incha allah moom lañuy ñuy jàngi fi ñu commencé ci lesson one bi ci chapter number seven bi muy talking about time mooy wax ci temps bi talking mooy wax ci anamu wax bu ma ne let's talk about the job nañu wax ci liggéey bi go and talk to your boss demal wax ak sa boss go and talk to your parent demal nga wax ak say parents kon toog mooy wax about nag mooy xaw a am jafe-jafe fii pour ñu mën koo expliquer ci benn leçon bi ndax about rek leçon wu boppam la mais ñu xool ban yoon moo ñu gën a yomb pour ñu comprendre ko about mooy ci boo ko tekkee ci dina la dimbale tim nag wax nga bañ a répété at lenn loo xam ne waxoon nañu la ko wala expliqué nañu ko nga bëgg am beneen porte buñ la ci gën a leeral exemple ci loolu bu dee ni da bëgg a yónni kenn ñaar toog kenn ki tudd Modou kenn gi tudd Abdou nga wax Modou na ko I would like to send you to the shop dama la bëgg yónni bitig ba au lieu de mu naan la why don't you send Abdou lu tax doo yónni Abdou wala you can send Abdou bu ko neexee mu ne what about Abdou mooy Abdou nag léegi Abdou nag what about Abdou même bu ñu la how are you nga ne I am fine. surtout que me mën nga koo wax what about you what about you mooy ak yow nag exemple and you how are you kon about ñu yem ci foofu pour leer la ne loolu lay tekki time mooy waxtu talking about time ñu dem ci speaking bi speaking mooy wax listen and repeat mooy déglu ak bantu look and learn xool te jàng léegi lan lañu am mooy what the time mooy lan mooy temps bi nan la ñuy jëfandikoo temps yan partie lañu am ci bis bi pour ñu comprendre loolu nag dañuy xool tableau bi wala dañuy xool cercle bi bu ñu xoolee ñaar la yu ñu xaaj bu nekk mu mujjee nekk ñeent loolu mooy lan xam nga bis bi muy fan bi ñaari partie la bu jant bi génnee ak bu jant bi duggee bu jant bi génnee bu ñu ko xaajee ci digg bi ak bu jant bi duggee bu ñu ko xaajee mooy nekk ñeenti parti yooyu ñeenti parti yooyu nag bu nekk juróom benn waxtu lay diire juróom benn bu nekk dafa am tur ci anglais bi ci jiitu moom li ñuy wax in the morning mooy six o'clock ci in the morning bi ba ci twelve o'clock at noon loolu mooy morning ci bu jant bi fenkee ba midi distance boobu lu fi xew ci activité ci morning ngi la ñuy wax ba ci bu ñu nuyoo dañu naan good morning mais bu ñu demee ba ci midi gi foofu moom la ñuy wax noon noon mooy midi gi bu fekkee tam da ko bëgg a tuddee ni mu xaajalee bu jant bi génnee ci distance bi muy def ci kaw mooy midday midday mooy midi gi nga xam ne moo nekk ci bu jant bi génnee midnight mooy contraire bi mooy minuit minuit maanaam midi gi nga xam ne moo nekk moo xaajale bu jant bi duggee mooy minuit foofu rek nag la compte bi yem ci heure ci twelve lay yem mooy fukk ak ñaar dañuy commencé at one muy benn jéemaat ba ci beneen twelve bi léegi nag lan la ñuy wax côté yooyu noonu ak nan la ñuy def ba ràññeetle ko tim dinañ ko leeral incha allah ci yeneen leçon yi nga xam ne moo ci topp. mais ñu jël li nga xam ne la ñu am ci leçon bi kon distance noon gi muy midi gi ba ci beneen six o'clock bi beneen six bi nga xam ne mooy bu jant bi duggee foofu mooy indi afternoon lan moo tax ñuy indi afternoon comme que midi mooy noon after mooy après kon après bu midi gi jàllee distance boobu noonu la tudd maanaam afternoon indi afternoon ci diggante boobu bu ñu nuyoo dañu naan good afternoon activité boo ci am tim dañu naan in the afternoon maanaam we will go back to work in the afternoon dañuy dellu liggéey ci ngoon ci foofu la tuddee ngoon ci ndax foofu mooy afternoon bu dee ne amaat nañu beneen six bi mooy bu jant bi duggee ba ci midnight ba ci minuit gi nga xam ne moo xaajale guddi gi foofu la ñuy wax in the evening activité boo fa am tim da nga naan in the evening comme we have a meeting in the evening ba pare nga wax at nangam at nga wax waxtu bi donc nan la ñuy waxee waxtu yooyu nag moom moo tax a jóg sax li nga xam ne mooy leçon bi wala moo tax a jóg bunt bi in the evening in the evening li ko commencé ci twelve googu xam nga beneen côté bi day jëmaat ci fi jant bi fenkee war a fenkee distance boobu mooy at night ci neyoo nag du ñu wax good at night wala good night ci tàggatoo la ñuy wax good night exemple bu ñu dem di tëddi léegi ñeenti partie yooyu lañu am moo séq bis bi kon bu jiitu mooy in the morning mooy six bu jiitu bi mooy juróom-benni waxtu yi jiitu ci six heures du matin ba ci midi commencé at midi muy une demal ba si 6 heures si ngoon foofu mooy indi afternoon commencé ci bu jant bi sooyee si 6 boobu jëmaat ci midnight mooy minuit muy 6 o'clock foofu ñu amaat fu muy indi evening boo bàyyee ko ci midnight googu jëmaat ci 6 o'clock in the morning moo la jox at night mooy guddi gi ñeent yooyu lañu am léegi ñu wàcc si suuf xool mais nee naa la pour ñu gën a leeral lépp loo xam ne moo moo. moom lañu am foofu li ko wutale ci France bi ak ci anglais bi xam nga danañu ko am ci bu ñuy def li nga xam ne mooy ceeg bi incha allah ok ñu continue ci number two bi mooy speaking speaking mooy wax ok answer your teacher's question mooy tontul question bi nga xam ne la la sa teacher laaj ok ñuy ñëwaat ci suuf ndax nee naa la fépp foo xam ne gis nga fa fooyi wala gis nga fa benn kaye rek loolu concerne wut livre bi buñ ñëwee ci number two bi mooy Guess the time on your partner's clock. guess the time guess gis nañ ko ci lesson yu mooy nattale toolaleel heure ci sa partenaire montoram bi clock mooy montor clock guess the time on your partner's clock and over day mel ni da ngay nattale di wax ban heure moo jot mais ci montor bi nga xam ne sa partenaire bi moom la yor léegi ki jiitu la ñuy maanaam laaj bi wala wax ji fi muy tàmbalee kii nee na is it in the morning waa ndax ci suba si la ki nee na ko no it isn't déedéet nekkul ci suba si de is it in the evening ndax ci ngoon si la mu ne ko yes it is mm-hmm, ci ngoon si la kay kon is it six o'clock ndax six heures moo jot mu ne ko yes it is waaw six heures moo jot kay mu ne ko soow it's six o'clock in ah, kon six moo jot ci ngoon léegi nag six heures moo jot au lieu da ngay wax in the evening am na yeneen baat yu ñuy jëfandikoo mais nee naa la incha allah bu ñuy def li nga xam ne mooy ceeg bi dinañ ko gën a leeral gën ko yàddal bu baax a baax a baax loo xam ne boo ne liñ heures li nga ciy teg wala boo ne six heures wax boo wax rek dinañu comprendre ci ban côté la nekkee donc leçon bi nag du nekk bu gudd loolu rek lañu am ci leçon bi nañu ko liiraat benn yoon mooy chapter number seven time days and activities mooy temps bi ak bis yi ak activité yi talking about time la ñu am mooy wax ci temps bi ok number one is speaking mooy wax listin and repeat mooy déglu te bamtu look and learn xool te jàng what's the time what's the time mooy ban moo jot lan moo jot ci temps bi lan moo jot bu ñu xoolee ci table boobu in the morning mooy si suba si comme ni ñu ko leeralee mooy six o'clock ci six heures du matin ba ci midi léegi bu ñu àggee midi mooy noon bu ñu rombee midi kon jëmat beneen six o'clock ci ngoon bi mooy indi the afternoon mooy ci après midi bu ñu rompaatee foofu dugg bu jant bi duggee ba ci minuit distance boobu mooy indi the evening bu ñu rombee bu jant bi duggee ñu jëmaat ci beneen six hours bi nga xam ne moo des mooy juróom-benni waxtu yu desaat mooy at night loolu mooy ci guddi guddi gi. number two answer your teacher's question questions mooy tontu laaj yi nga xam ne la sa teacher bi di laaj. ok ñu ñëwaat ci pratique bi ci number two guess the time on your partner's clock nattaleel temps bi si sa montoru partenaire and hmm, then change kon moom boo waxee ba pare moom itam mu def ko comme mu ne is in the morning mooy ndax si suba si la mu ne ko it isn't déedéet nekkul fi nekkul ci suba si de ah is in the evening ndax ci ngoon si la yes it is mhm. ci ngoon si la kay ah is sixty o'clock mooy is it sixty o'clock ndax six heures moo jot yes it is so kon hmm, it's sixty o'clock in the evening kon six heures la ci ngoon boo seetaanee bi ba pare beneen bi nga xam ne moo ci topp mën nga ko cliquer nga continuer ndax leçon bi guddul boobu moo xaw a gën a gudd tuuti te ci même waxtu lañu ko dugal li ko waral mooy bii nekk na lu yomb moo tax it ñu boole ci bëre ci même bis ci même waxtu ok fii dañuy yem ci lesson bi di la fàttali bu fekkee abonné mën nga abonné en même temps bi laaj ci vidéo yi am na si solo bu baax dina tax tamit YouTube di ko serve ñeneen bañ mën see jot incha allah di commentaire tamit boo amee benn laaj wala bu ñu waxee nga def exercice nga def ko